الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجنة هم خالدون mbokk téléspectateur yu Sen TV asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa gannaaw ba nu sante borom bi subhaanahu wa di julli ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam delluwaat di sant sunu borom ci li mu may ñu teew fii ni ñu leen ko diggee ñu ngi fii kon ci Ndogal Dieng euh, fas yéene nemmeeku leen daara ji nga xam ne nii daara moderne la waaye daara modèle la danañ nemmeeku itam euh, infrastructure yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi muy kër Serigne Touba Cheikhul Khadim gi nu fi amal ak euh, jumaa ju mag ju taaru ju yéeme ji nga xam ne ni moom moo nekk fii ci sunu gannaaw Ndogal Dieng nag di dëkkub cosaan Ndogal Dieng di dëkkub diine ngir euh, gën ñoo xamale ak dëkk bi. ak ki nga xam ne nii moo ko sanc tey ba dëkk bi tollu fii ñu ànd ci ak euh, Mbaye Dieng mi nga xam ne nii mooy boroom dëkk bi. Serigne Abdoulaye ñoo ngi lay nuyu euh, di la gërëm la yow nag di la siyaare bu baax ndax euh, diggante bi déplacement yi jafe na kon nag ñoo ngi lay sant di la gërëm ci loolu ndax ñëw fi barab bi roqe na lool li nga laaj si ndogal ki sant ndogal mooy sunu maam mu ñuy wax sëriñ Mor Ma Ndaw Dieng moom datub sanc ba xam nga toujours maanaam histoire e, werante da ciy am kii wax lee kii wax lee waaye daal li gën a wér daal mooy moom mi ko sancoon moom 1903 la fi bàyyeekoo 1903 la génn àdduna bi mu génnee mi ngi jóge woon nag dikk bu ñuy wax Njigéen Njigéen mi ngi ci ginnaaw Pekes foofu la jóge woon jaar ndogalu jeere dox jaar pëleen dédd e, ñëw gëti sàkke dal fa bi mu dalee gëti sàkk ca joojo jamono la ko taxoon a jógeen mooy gën a yaatal lislaam rek ak fu mu mën a beroo ba mën a def li muy def ci ci ñi mu yor ndax moom jàng ak jàng la rek moo woon métier bi mu ñëwee gëti sàkke ma gis ne foofu xaw naa yaatu mu dal fa nekk fa ab diir li ñu koy jox xaw a bari dëkk ba mel ne luy xaw a màgg tuuti mu ne leen man bu ma sañoon damay am foo xëy dama fay beru ak ñii ñu ma jox ba mën a def ci moom li ma ci bëgg def ndax jaxasoo gi xëy na di dinaa ko man sax waaye nag boo njee jaxasoo xay na na ko bëggee doo ko ni mane ci lañ dem pëlendee di ci ci ci ci ci laman xamal ko ne ko am na gan ko fi ne gu bëgg fu mu dal mu ñëw mu dalal ko fii muy ndogal jeng ba mu ñëwee wax nañu ni bi mu egsee jàkka la jëkk rëdd bi mu rëddee jàkka ji daale tas kaamil bi moom mbooloo mi mu àndal ñu wàcce kaamil bi mu ne dogal bu yàlla ngi ci man daal di wax ni fii di dogal yàlla ci man képp ku fi dëkk bëgg fee dëkkee loo xam ne àndul ak lislaam ju sell yàlla na la fi sunu borom jëleel boppam ci barkeb téere bii loolu mooy moom la wax keroog ba mu sancee bi mu sancee muy yar di jàngale di jàngale ko yar nit ñi di ko jox seeni doom gëti saake soriwul bëtul deux kilomètres diggam ak fii waaye ñoom it dal gi mu dagaloon ak ñoom nekk ak ñoom tax na bi mu fu mu fu mu dañ ko faa fekk ba fi mu nekk nii korite ak tabaski fii lañ ko seeni fii lañ koy jullee si famille bi waaw. ñoom fii lañ ko jullee bu ñu waxee ñu ne comme sunu maam da daan ñëw di fekk si seen maam. bàyyi lu di leen fekk si rek. di ko def na ko sunu maam daan defee. sëñ Baye da nga wax léegi ne hmm. euh, seen maam boobu nga xam ne ni moom moo sanc dëkk bi. Hmm. bi mu ko sancee li mu hmm. njëkk a def. mooy rëdd jumaa. waaw euh, ndax ba mu rëddee jumaa ji am na lu ko lu mu ko mandargaale woon. Euh, maanaam mag ñi. ca jooja jamono. bu ñu rëddee jumaa dañ koy sàkket wëral. waaye jamono yooyu léeg-léeg yaa lakk daf daan am ci jooju jamono wala feebar yi daan am ci jamono yooyu bu defee dañuy wëlbati dëkk ba geneen wet. Mm-hmm. Eh, bi mu ñëwee muy bay di jàngale mu wax fi ab diir ay bokkam yenn ti bokkam daal koy fekk si eh, géwél jigéen laajte ko di ko laajte di ko laajte ba leen mi ngi sow jant ñu ñëw bi ñëwee ba fii fekko fi daf leen a yendoo teral leen ngoon jot mu may leen fas ni leen tuxuwuma damaa gàddaay mm-hmm. sama diggante yéen lislaam dog na ko. tuxuwuma damaa gàddaay te du ma dellusi. booba euh, euh, xamal na leen ne. waaw léegi daal moom wéetal yàlla lay def wéetal yàlla lay def maanaam du dellu si waat fu mu jóge woon. Mhm. xamal leen leen sama digganteeg yaa lislaam ma ko dog. Mhm. tuxuwuma damaa gàddaay damaa gàddaay te gàddaay yàgg na ci lislaam defe naa. Mhm. Euh, loolu mooy woon saba sababu loolu. muy yar di jàngale di bay di dunde mbooloo mi di ñëw ñii di jàng si ñii di ñëw di wut si xam-xam ñii di jël seeni doom di ko jox mu di leen jàngal benn jarbaatu doom rey muy sëriñ maam moor waa di ñëw fekk si ko nekk moom ci liggéey boobu magam fekki si ko fi rakam fekk si ko fi lii mooy ndogal. bay hmm. liggéeyal sunu borom rek euh, moo wóor. moo wóor ndax euh, seen maam jooju bi muy sanc euh, dëkk bi. Hmm. ni nga ko waxee. Hmm. jàkka njëkk rëdd waaye jàkka jooju nga xam ne nii moom la buggoon yaakaar naa ne ñi ko fi wuutu yeggal nañ ko mébétam ndax ku fekke woon démb gis tey lii nga xam ne nii mooy jumaa ji taxaw ci ndogal mhm. nga xam ne euh, jóge fi mhm. bàyyi fi ku baax lu am solo la dëgg la euh, ci loolu fii kër Sëriñ Tuubaa gi nekk nii tey moom moo nekkoon këram gi mhm. mu mujj ndëkk fii jumaa ji ne nii mooy woon daxaaru penc gi daxaar gu ma fi ne woon daxaaru pencam la fee barabam bene moo doonoon jàkkaam dafa neloo ñu rob ko ci jàkka ji mun du def ko ay armeel mais fee jaay mu ñu barabam ne moo nekkoon jàkkaam fi jumaa ji ne doonoon daxaaru penc gi mhm. fii nekkoon këram fii nekkoon këram fi nekkoon këram léegi mooy kër Serigne Touba mhm. léegi itam ci loolu keroo boo mu sancee ndogal noonu rëdd sanc ko xeeti po yi am ci jamono mhm. tax te tax naa jooja jamono gi bari woon na lool waaye lu demee ni tëgg tux poon yoote bëre làmb yooyu yëpp booba la ko tere woon moom booba la ko tere woon te 1903 ba mu fi jógee ak léegi ba léegi nii sunu borom ngay suturaal ci loolu amu fi. dana ñu visiter ci kanam tuuti. Euh, daara ji ak kër sëriñ Touba gi waaye euh, balaa loolu. dañuy njëkkee ci néegu sunu borom bi nga xam ne ni moo gën a am solo ci dëkk bi muy jumaa ji kon ñu dem nemmeeku ji ko. waaw euh, jumaa jaa ngi nii. ni ko sëñ Bay waxee euh, moom chef de village bi euh, financement propre la njaboot gi ñoo ko financé ñoo ko liggéey ba mu mel nii mu mel tey kon gis ngeen ko euh, boo doon seet tey juma ju ko dàq ci Sénégal danga nga wër ba sonn te gis nga fii ñu ko def kon nekk fi ba jóge fi bàyyi fii ñu baax lu am solo la sa gannaaw ndax dana ñuy mottali mébétu mag ñi. fi taxaw nii fi la Dakar penc gi woon euh, gu maam Mor ma ndaw euh, waaye bu ñu lay nettalee histoire da nga xam ne maanaam lii mun fi woon a ñàkk ne ndax euh, ku ñuy wax góor gi Modou di gis fii la dëkkoon ndogal fii la jóge woon dem Njaaréem dem ci Cheikh Ibra mu demee jiiblu ci Cheikh Ibra Cheikh Ibra ni ko foo bàyyi ko mu ni ko ndogal. mu ne ko ndogal gan mu ni ko ndogal moor ma ndaw nee Seex Ibra ne ko ndogal moor ma ndaw de xam naa ko ndax bi may wër ku tedd ki daxaar bi njëkk am naa fa ñetti guddi ndax leeram ko waa fan di gisoon moom laa doon seet jaakaaroon ne ki may seeta ba fa amee yetti guddi laa xam ne du moom ma door a jàll waaye moor ma ndaw ca jooja jamono ñu fi doon woote ci lislaam kenn ëpp ko ci woon ak leer kon maanaam lii mënu fay ñàkkane euh, fii ñu nekk nag euh, ci penku jumaa ji mooy rawdu bi nga xam ne nii Euh, fii la ñu denc Serigne Dogal Mor Mandaw Dieng. Euh, ñu denc Serigne Mor Mandaw Dieng moo nekkoon jàkkaam néegu bu yàlla bi nga xam ne la daan jaamoo sunu borom fii la bi mu fi bàyyeekoo ñu denc ko ci biir jàkka ji mooy sabab fii nekk barabam mu ngi fi nekk ak doomam Momadou Lamine Dieng Momadou Lamine moomu nag. mooy woy juru Serigne Jibri Dieng mi jur sëriñ mi doon taxaw liggéey bi ak soxnaam suñuy wax soxna jëmbale yi. ñoom ñoo fi ne ñoom ñett ñoo fi ne. Eh, trayam bi defe naa ci jamono yi muy jaamu sunu boroom di ñaan la muy ñaan moom rek nekku fi woon am na ay yeneeni kilifa yu fi newoon waaye moom sunu boroom nangul na ko ca loo xamante ni bëriwul ñu mu ko nangul ndax sancub dëkk tere fa mbir. nekk fa ba bàyyi koo fa téeméeri at ak fukk ak nangam sa gannaaw te la nga fa doon bañ dara yéen fanaanul ca dëkk ba yendu fa bëriwul ko ko sunu borom may. ba léegi loolu mooy wéy kon euh, yaakaar naa ne li nga xam ne moom la bëggoon ci dëkkam bi moo fi dox ba léegi barab bi kon di barab boo xam ne nii barabu ñaanukaay la itam xanaa ñu tàllal euh, sunuy loxo rek. gannaaw ba nu ñaanalee euh, sëriñ bi fi tëdd ak njaboot gi ñu tàllal euh, loxo rek euh, borom bi ñaan ko ci barke ñi tëdd fii yal na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla def jàmm ci réew mi ndax jàmm ci la lépp xej ndax diine ji nga xam ne nii ci la ñu tënku muy lislaam day diine jàmm kon fépp foo xam ne nii euh, yaakaar nañ ne pare bu nangukaayu ñaan la rek bu ñu fa demee war nañoo ñaanal réew mi ndax amuñ lu réew mi. ci rawdu euh, sëriñ Dogal euh, beneen rawdoo ngi nii di Serigne Mor Wade nekkoon jarbaat ci Maam Mor. waaw mbokk yi barab bi mooy barabu Serigne Maam moor wàdd doonoon jarbaatu Maam Mor Mandaw. boo xaye moo ko yaroon di ko jàngal bi mu sañcee mu ñëw ànd ak moom sanc euh, nekk fi di ko jàppale ci liggéey bi ndax ab liggéey ku ko sumb il nga am ku la jàppale ku sus ci yow Maam Mor Wade mii nag moom bokk na ci ñi demoon ci Serigne Touba. bi ñu jógee ci jumaa ji ak ci rawdu yi ñu ngi fii nag euh, ci euh, kër gi nga xam ne ni këru Cheikhul Khadim la muy kër sëriñ Touba. bi mu koy defarit ñu defee di jumaa jooju yegg na dafa bëgg ñu defar fi kër goo xëy am kër Serigne Touba am daara euh, bi mu noppee kër gi maanaam bâtiment bi euh, mi ngi nekk ñeenti néeg la yoo nga xëy néeg bu ci nekk cinq mètres carré la bu ànd ak salle beem ak salle boo xay mat na huit mètres carré loolu lépp ñu def ko ngir njabootu Seexul Xadim gi wala kilifa ak diine gu dox ba fekk ci dëkk bi rek bu ñëwee kër gi këram la këru lislaam la daal kër sëñ Tuubaa mooy kër lislaam sabbi asma rabbika al-a'la allazi xalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi axraja mar'a fa ja'alahu qusaan nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yaxfa wa nuyassiruka lil-yusra fasakkir in-nafa'ati as-sikra sayasakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al-ashqa allazi yaslaa an-naara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yaxya qad aflaha man tazakka wa stakbara rabbihi fa salla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha la fi suhufi al-ula suhufi ibrahima wa musa sadaqallahu al kon eh, ndongo loolu saar woowu mu yëkkati mooy wone rek ne ñu ngi fii ci daara ji ànd ak eh, sëriñ daara bi ak eh, ndongo yi ngir waxtaane jàngu bi nga xam ne ni li mu dajale ci ay ndongo bari nañu ni ko Serigne Dieng di waxee rek ne li nekk ci dëkk bi yëpp a ko neex ndax lépp euh, yëfu sëñ Touba la waaye nag nee na euh, muy juma jeeg euh, di kër sëñ Touba di dal yeeg yëpp li ko ci gën a intéressé moom mooy barab bi ñu nekk tey muy daara ji nga xam ne nii moom mooy former. gone yi nga xam ne nii ëllëg ñoom ñoo war a jël relève bi ci wàllu diine ji. sëriñ Abdoulaye Lam ñu ngi lay dalal fii ci Touba Ndogal Dieng laaj nga ñu laaj bu am solo boo xam ni am na lu tuuti luñ ci mën a tontu yaa ngi ci dëkk bu ñuy wax Touba Ndogal Dieng ñu ngi fii ci daara ji daara ji nag ñu ngi ko ubbi. ñaar fukki fan ci weeru baraxlu atum junni ak ñeent téeméer ak fanweer ak ñett dëppoo ci atum tubaab 11 juillet 2012 boobaak léegi. kon daara am na juróom-benn at. ci waaw war naa ci juróom-benn at ci ren. Mhm. waaye sunu boroom ci ak mbaaxam. ak kàttanam ak ñàkk jeexalam dara. fii ñu toll ni lim bi xam ne moo ne ci biir daara ji ci aw góor toll na ci juróom-ñett fukk ak juróom benn bu dee jigéen ñi juróomi jigéen moom ñoo fi nekk xam ne moom féetewuñ ci daara ji ci biir dëkk bi lañ dëkk waaye juróom-ñett fukk yi ak juróom benn yëpp ci biir daara ji lañuy yewwoo ci kaw juróom-ñett yi ak juróom benn lim bi nga xam ne ñoo mokkal dana ci daara ji xam ne génnagun daara ñu ci biir daara ji ñibbeegun toll na ci fukki gone ak juróom-benn muy seize personnes li nga xam nag jot na fee jaar jàng fi alxuraan ba mokkal ba dellu ci seen loxo ñaari way seen loxo yi wajur toll na ci fukki gone ak juróom-ñeent ci diirub juróom-benn at yooyu sunu borom def na taw fee xam ak baaxam juróom-benn at yooyu ci la fukki ak juróom-ñeent yi mokkal ba bind kaamil ci biir daara ji ba jëbal ko seeni wajur ba nekk ci yeneen liggéey jamono yii nag ñu toll. li fiy bind kaamil toll nañ ci juróom-benn gone yoo xam ni ñu ngi seeni kaamil di ko bind li fiy beqi beqi nag boo ko déggee mooy ki jàng alxuraan ba mokkal ko bañ téyal ko ko mu wàññi ko di ko bind ci alluwa ngir di waajal nu mu mën a bind ab kaamil ndax nit ki mënut a xëy mokkal rek bind ab kaamil te jaaroo ci beqi ndax beqi su ma ko misaal mooy kuy am lu muy waajal. di ko eh, lu mu bëgg a def di ko waaj. entraîner entraîner ngir def lële. Mhm. loolu la ñu naan beqi te it dafa am leneen lu am solu ci am mooy day dëgëral ak mokkal ndax li ngay beq ci wa ñaare doo ko xool da koy bind ci loo dul xool te boo ko bindee ba noppi da ngay ñëw ñu toppalaat la ko ba lu ci am ci ab yàq ñu xoolal la ko boo ñu bu guddi jotee nga jàngaat ko kon loolu mel na ni boo ci saxee ab diir sunu borom mën a def lépp loo mokkaloon day gën a yokk bu bu ñu demee nag ba xool beq na ba loxoom rafet. ca lañ ko wutal paquet muy ab kër kër yu weex yi mu bind ci ab kayil boo xam ne nam bind woon ca ëlluwa ji noonu la bindee doo ko xool ngir bu kayil ba noppee na bu ñu ko toppee ba mu wér ci lañ koy jébbal ay waajur waaye na diir bi nga xam ne keroog bi mu taalee alxu euh, alxuraan ba ñu yëg mokkal na ci lañ koy fas yéene tàmbali ko jàngal njàngum xam-xam nga xam ni balaa génn daara ji dem di jàngi faneen dana am ab lim wala lum mën a gànnaay yóbbaale ko buy dem naa léegi la ñu ngi ko ubbi ci 11 juillet kon lim bi fi jaar boo xoolee lu mu gàtt gàtt mën na téeméer ak nangam waaye daal fukk ak juróom-ñeent yi ñooy ñi nga xam ne moom jàng nañ fa bind keneen ba ne ci seen loxoy waajur fii daal daal toll lim bi fi nekk nag li muy rëy rëy jëmm ji nga xam ni moo la fi yebal muy sëriñ Mbacke Dieng suñu borom defe na bi daara ji ubbeeg léegi lépp lu daara ji dunde ci seenu nekkin seenu wér-gu-yaram seenu faj lépp suñu borom dël ci ab loxoom mm-hmm. boobaak léegi. fi ne boo xoolee bâtiment bi nii mu mel nii nii kër gi toll dafa nekk cent mètres carrés mu xaaj ko ñeent appartement benn bii ngay séen étage bi ngay séen doo nga yee ko moom bi ci topp sëñ daara yee fi nekk bi ci topp kër sëñ Tuubaa gi la ba ci mooy kii toggal waa daara ji moog borom kër foofu la nekk moom itam bu fu ñëwee moom bu ñëwee seet barab bi foofu lay nekk xane noonu la seet barab bi waaye fala maa nga see ba nga xam ne dem dundub daara ji xam dongo yi moom yëlwaaniwun taxaniwun góoruñu yëttuñu lim leen sant mooy jàng jàng rek seen añ ak reer lépp moom bu añ jotee ci da ñenn ci ñoom ñooy dem ca waañ wa jëli ko bara jëre noonu ba ci ndékki li sax noonu lañ koy def xanaa moom dëkk bi moom amul luñ fay def xanaa lu dul waa dëkk bi dama ñoom am nañ taxawaay ci dëkk daara ndax taxawaay bi ñu amooy mooy fexe nañ ba ñoom fukki fan ak juróom yu nekk danañ dajee ci mbaar moom ngay seen dugg ci daara ji mboolem fu yére ko nekk danañ ko génne dajale ko fóor ko ba mu set ñu weeral leen ko weere ko indil leen ko moom dëkk man loolu loolu lañ baaxut ñoom eh, ndey eh, daara ci fóotal seen i yére waaye bu dee ci wàllu dund gi moom sëriñ Mbàkke mi nga xam ne moom la suñ borom nattoo barab bi moom boobaa ak léegi moom la ko suñ borom nattoo te suñ borom mi ko ca jàppale ni waaw mi ngi ko jàppale ni bu dee wàllu wér gi yaram tam am na benn médecin bu nekk kàbbu ñu ne Alioune Diop ku jàmbaare koo xam ne daa waxoon bàyyi sëriñ ni ko dama bëggoon donga yi nañ fexe ba kenn ku am carnet de saa yu fee gone bi feebaree buñ ko yóbboo ci Jóob amul benn ordonnance boo xam ne dana la ci laaj dërëm ticket sa doo ko jënd moom da ko jël en charge bu dee lu ñu war a entré mu entré ko bu ñu waree kuñ bu dee ku ñu war a piqué ñu piqué ko ci daara ji moom Jóob mais ca mais mais mi ci jaamu yàlla ku baax ku baax ku baax ndeysaan waaye daal ni ma ko daal euh, daara ji ci loxoom la nekk day moom sëriñ day wax nag xam na ni doomu aadama am na fu mu tàmbalee waaye am na fu mu yem mhm. kon alali jullit ñi la ndax li fi nekk ci boo ci xooloon doom yi doom yi genn wàll gi mënuñ mënuñ mënuñu asaka ci li fi nekk kon li fi nekk donte ñëpp ak njabootam waaye ñim juróo boppam boo ñu woon boo ne woon ñett doon ñeent ñi des ñëpp ay doomi rakkam ak doomi xar ak doomi wërdëm ñoo ne ci daara ji waaye daal euh, nii ñu la ko waxee daal nii la daara ji doxee bi mu tàmbalee léegi suñu borom ñu ci def tawféex ah, ñett jàngalekat ñoo fi nekk suñu borom nat nag man maa leen jiite waaye am na ñeneen ñaar ñu ci dolli ko ginnaaw am na sama mbokk daara moo fi nekkul naan sëñ Muudu Mbay ñoo fi njëkkër nekk waaye ginnaaw daa am mot li ji ëlluwaam euh, ba fii daal ñett jàngalekat ñoo fi nekk Euh, séq juróom ñett fukki gone ak juróom benn yu fi daara ji ak juróom jigéen ñoo xam ne ci biir nekk li daal mooy doxin mi xam ne fii may xam ne moom la nga xam ne nii ñoom la ñuy tuddee ay élèves waaw ah. nekk ci école publique yi waaw ah. ba ci université waaw ah. nguur gi mënalu leen dara waaw kon nag ba pare wëlbatiku taxaw taxawaayu hmm. bëgg jàppale daara yi hmm. loolu xanaa mooy euh, lool loolu ñu yen la loo attanul nga bëgg caa teg leen loolu moom aw tur waxin la rek ndax boo jiite moom faaw ngay wax lu neex nit ñi hmm. waaye loolu ñoom mënuñu ko mënuñu ko déedéet mënuñu ko daara daal ki koy jàpp mooy ki am volontaire fas a taxawal daara moo ko man a doxal ak donga bi doon jàngee ci daara ji ba jóge ci ne ci ne ci beneen barab ñëw ji participer ci daara ji ak waajur wa joxe doom ci biir daara ñoo man a jàpp daara bu état ñëw doo ca teg loxoom waaye kenn ku la ne daara mën naa dox état di ko doxal moom boo ko ñëwee nee ko da ngay neexal wax ji waaye loolu état mënu ko ndax bu fekkee yow li nga yót dañoo ne balaa kenn tal kenn paasam ba mat ku paasam matu du yóbboo du dem dëgg la mënoo jógee fii jëm ngaay mhm. te ngaay ñu nga fay téeméer te nga yoru juróom fukk bëgg yóbbaale kenn mënta nekk état bu amee yéen bu ko amee yéen tam mënu ko mhm. daara daal li koy doxal wax naa la ko léegi mhm. ki am walanteeru fa séenee taxawal daara ngir yàlla moo koy moo ci jiitu donga bi ne wan ci daara ji jàng ba jóge fi yëg ni ginnaaw yàlla nu mu mel daara jaa mu ñëw jàppaat ca daara ja ak waajur bi nga xam tam daa bëgg lu baax ba jëloo ñu moom ñoom ñi ñu mën daara hmm. lu ci état def doo ko caa def hmm. waaye état moom bu daara moom hmm. état daara ju yaakaar état koy doxal daara ji moom dana yàqu ni nga ko xamee ak ni ko waxee daara ji moom lépp lu ci war euh, sëriñ moo ko gàddu euh, xaaru ci kenn te itam séntuwu ci ndimbalu keneen ku dul ndimbalu sunu borom tabaraka wa taala waaw xam nga barab bi léegi dafa xaw a sori sori xam te ñi ci ëpp daanaka Tuubaa lañ dëkk néewaan nit déplacé ñëw seet sa doomam ndax ñu ci bari dalu xel gi am dalu xel ci daara ji tax na fi ne jëralu leen sax jug di seeti seen i doom ndax dañuy gëm ne ñoom daa doo gonde yi seen kër lañ nekk ndax dañoo xam ne kii yor daara ji ni mu bëggee alxuraan ko jox sa doom sam xel ma naadal ba fi ne ci bare bare fi ne bu bu événement jotut néewaa na ngi gis nit jur gone muy seeti doom mm-hmm. événement rek mooy nekk xanaa li ma wax léegi xanaa kon daara moderne mm-hmm. daara modèle la ko gën waaw ah, da ah, waaw xam nga moderne moom li ma wax baatu tubaab la te fi ne jamono daanaka jamono sax fi moo moom moderne boppam comme mm-hmm. neex ndax tey bu njëkk sëñ bi ay karo amutoon uh-huh. loolu boo ko bañee ak bu la neexee ak bu la naqaree loolu jamono mooy dem ba yóbbu la ca moom lu ñaan for force la ku toog ci lii were nga faa nga ko uh-huh. ah. kon jamono moom waaye nag ni ñu ko bëgg a jàppee mhm. ndax programme bi ñu fi tërloon naan léegi dañuy former suñu daara ab suñu daara bu jàng alxuraan ba moo ko la yor daara boo koy formé noo koy formé inna haazal qur'aana yahdii lillatii hiya aqwam wa yubashshiru l-mu'miniina allaziina ya'maluuna s-saalihaati anna lahum ajran kabiiran wa anna allaziina laa yu'minuuna bil-aaxirati 'adaa lahum 'adaabun aliiman wa ja'alnaa l-insaana mustaqran bil khayri wa kaana l-insaanu 'ajuulaa wa ja'alnaa al-layla wan-nahaara aayatayni fa mahanaa aayata wa ja'alnaa aayata n-nahaari s-siniina bi ñu jógee ci daara ji nag fii ñu nekk mooy dëkkuwaay yi fii la xale yi dëkk muy néeg yi nga xam ni moom lañ leen fi tabaxal muy bâtiment bu taaru bi ñu dem nemmeeku ji ni xale yi nekkee ci wàllu couchage ci wàllu tëdd. bi ñu door door ab terrasse la woon waaye bi ñu demee ba li mu gone yokkoo ñu xalaat ni ay goneem fu ñu yokkoo seen tëddukaay dana yokk moo waral ñu yëkkatiwaat ci kaw gi. waaye dañ koy def ñaari salle yu mag yoo xam ne euh, lu fi ne daanaka lim ci suuf sax mën nañu dem ci kaw te kaw te kaw gi du fees moo tax ñu delluwaat ci xam ne moom ëgg ëggul sax ci daaw gis nga benn salle baa ngi nii ak kuréel bi beneen beneen beneen salle baa ngi noonu ñaari fi ne gone taamu suuf gi sax na sax kaw gi li ñu fi tëdd bëriwul xam nga gone am ñaare tëdd suuf la ko gën a sax tëdd ci kaw ndax yéeg bi wàcc bi lee day xaw a metti ñoom bi ñu jógee nag euh, ci dëkkuwaayu xale yi ñu ngi fii nag euh, ci dëkkuwaayu sëriñ daara bi nga xam ne nii njàngale mi ci loxoom la ñu ko teg. Euh, fii moom yàlla def na mooy barab bi xam ne sëriñu daara ñoo fi nekk suñ borom def maay seen jawrin di seen mag ci liggéey bi moom itam niñ liggéey fee lañ ko liggéey moom amul amul wuute. ñett nit ñoo fi nekk akub saal. loolu moo fi nekk sama sama ñaar soxnaa fi sama soxnaa fi nekk ak sëñ daara fii daal mooy mooy sun mooy sunu makkaan bi ñu nemee kër sëriñ daara bi ba pare nag Euh, ci la ñëw nag fii ci tool bi muy jardin boo xam ne gis ngeen ko ay meññeef ay orange ñoo fi nekk orange yu Maroc gis nga ko ak ak suñu orange yu ñuy béyee ci biir réew mi clémentine gis nga ko euh, ni mu ni mu meññee euh, li moom jàng na le fi daal fii fi fi moom mooy toolu mooy toolu daara ji ah, ndongo yi ñoo koy toppatool ah, seen bopp. moom ñoo koy toppatoo fi ne gis nga ñaari baaj baaj yaa nga ne mhm. fi ne buñ ko duyee ba mu fees loolul ci waxtu bi ñuy jàng dara buñ jullee fajar ci jumaa ji lay ñëw roose ko danañ ko roose te du mhm. ñu dellu tëddi ba jàng ñu jàng xam yàqu leen dara waaye lu fi ñor tam du leen génn orange ñi nga xam ne saa ñu ko daggee mhm. nu mu mën a toll ginnaaw buñ ko séddale waa dëkk ba noppi mhm. ñoom lañ séddale ci des moom la toll mooy li ñu dagg ñëpp yenn kon kon kon mbokku téléspectateurs yi mun ngeen xool tool bi tool bi day bu fekkoon ne ku nekk am nga tool bu mel nii sa gannaaw kër euh, Sen TV nemmeeku leen tey dëkku diine bi di Touba Ndogal ci commune bu Méouane ci région de Thiès muy euh, dëkk bu mag bi ci daara modèle bi jumaa ju mag ji ak kër sëñ Touba gi di sant di gërëm nag bu baax euh, Serigne Mbacke Dieng di sët ci ki sanc dëkk bi muy borom dogal ci taxawaayam ci dëkk bi waaye ñuy sant bu baax itam di gërëm borom dëkk bi euh, ci jàppale gi mu ñu jàppale Serigne daara bi ci taxawaay bi nga xam ne ni taxaw na ko ci reportage bi ak ñi nga xam moom lañu ñu Serigne booleel ñu doon ñu jàppale ci liggéey bi muy soin bu jëng ak alaaji moor Bey euh, di sant itam euh, Serigne Mbacke Dieng euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen dig daje incha allah ajjuma ji di ñëw waaye nag bala ñu ne asalaamaaleykum dañuy delloowaat kàddu gi Serigne Daara bi mu defal ñu ñaan. Abdoulaye Lam xanaa doolee gërëm rek ak di sant ak di leen ñaanal bu baax ndax lii ki ko fi def dañ la woon ci njëlbéen gi rek yàlla kese rek a tax mu def ko waaye fii mu toll pour adduna bi teg ko bët donte bu rajo amutoon suñ borom lu mu bëgg a feeñal feeñal ko waaye média bi am na rôle bu mag boo xam ne moo ko ci mën a suye ndax bari na def ko lu baax yoo xam ni yéen a leen ko mën a jot li bañ gis ko xam ni kat ndeke baraba ngi nii boo xam ni bu dee kuy wër fu nit liggéey la yàlla rek baraba ngi nii ndax barab bu toll ni wax naa léegi ni la ba juróom-ñett fukki gone ak juróom nekk. ñu leen di dundal guddi ak bëccëg suba ak ngoon seen añ ak reer ak seen ndekki buñ ne nee ci benn loxo la nekk da ngay xam ne yàlla moom dara tëliwu ko waaye nag ku ne xam ne ne doomu aadama am na fu ay mbiram tàmbali waaye am na fu mu kon jullit yëpp nañ yëg ni lii bu ko sëñ Mbàkke xalaat itam jullit yi tam mu xalaat ko ndax xam na ne moom am na fu mu am na fu mu yem te man ak man dañoo ànd waaye nag bu ñëpp jàppee ni kenn ku ne sa alal mi ngi ci war nga caa mën a jàpp kon mën naa mën a war a mën romb fii kon nag yéen ñi xam ne yéenee tasaare euh, daara ji fi mu toll yéen itam ñu ngi leen di ñaanal bu baax sunu borom mi xam ne dara tawu ko fa ngeen bëgg seen télé ba àgg fa suñu borom dimbali ngeen àgg fa ci barke Seexul Xaddim mi dara tëwut daal la sant nañ leen ndax li ma la wax rek euh, lii borom mënalu ko boppam waaw lii lii lii borom mënalu ko boppam li ma léegi nii leen toujours fi euh, fi jamono toll anoon lii média moo ko mel médiatiser ba jullit yëpp yëg ni ndax léeg-léeg nit yëg ni ñuy xas daara waaye ku ñëw fii doo xas daara da nga xam ne dañuy xase daara moom du daara ji moo ci dox ndax daara joo xam ne mu ngi recevoir lim bu toll noonu euh, xëyuñu ñu ab tool sax béyuñu ko boo xam ne ñoom ñoo ko déedéet bu ñu bay tool dëkk bi ñoo ko béyal daara ji waaye borom daara ñu moom béyul ab tool ngir donge yi di ko bay déedéet moom donge yi lim leen sant guddi ak bëccëg mooy jàng amul wenn waajur woo xam ne da ngaa warloo moom weer wu dee mbaa àllarba juróom mbaa weer fukk déedéet moom lu mu doon ne moo ko jëlee bopp en charge kon nag ñi ko mën a tasaare ba àddina bépp yëg ni ku mel ni borom télé bi El Hadj Bougane moom itam gis nañ baax li muy def guddeeg waaye daal def ko de baax nañ yëg ni baraba ngi nii boo xam ne kuy liggéeyal yàlla rek tax laa jug na la wóor ni borom dee ngi nii néewul nag indi ma def ci waaye koo jox ma def ci la sëñ bi ba muy yokk jumaa Tuubaa ji du ma ne kenn def ci waaye lu ma waaye jox ma def ko ci man lu ma am nag du ma ko moyene te moom àlla moyul lii kon nag yéen ñi ñëw ngir tasaare ko jullit ñi gis ñu ngi leen ñaanal fa ngeen bëgg mu àgg fa yal na ko suñu borom àggale ba ku ko yëg lu mu def ci lu baax yal na leen suñu borom boole ci booba ñu ngi leen jéegu di leen baal wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah baax na tabaarakallah. waaw jërëjëf sëriñ bi ñu ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi. Euh, yéen it euh, ñi àndoon ak ñun ci biir réew mi ak euh, biitim réew mu nekkoon seen émission ëttu këru diine ji di sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp tey baal àq ñëpp dig daje àjjuma jeneen incha allah aouzu min asaytaani rajim bismillahi rahmani rahim janna hum fiha khalidun ربنا صلاه yansatama anta nabiyu wa rasul wal umam bika xiyadu salima bi sama سيدي أسنان